sa waay yaa ngi ci dara dégg nga ci looy nekk nii. waaye xam nga bu ma jógee Sénégal. bi ma nee ci àll bi dëkk àll yi Saloum surtout Saloum daa am ay gars yu bëri yoo xam ne ay quarante cinq ans ay quarante six ans yeewuñu xamuñu la xew ñu si bëri na ma ma ma dig leen téléphone ay téléphone téléphone yooyu laa jënd bu mu toll nii dama leen damay installé mais bii moom bokk ci bii Ibrahima Gueye nee leeral ko moom dafa am problème téléphone quoi xam nga patriote boobu. léegi nag téléphone yi laa bëgg a installé. Je vais ay Facebook ak Facebook TikTok ak YouTube d'aller di abonné puis les luy Ousmane Sonko rek lépp luy passe Ousmane TikTok Facebook Pas y passe Ousmane Sonko pas passe yi à Ousmane Sonko à publié bu ma euh, comme lu vous passe Ousmane comme lu TV. lu mel ni paasu paasu président Ousmane parce que ñoom ñoom maa leen di ay ay ay email. kon daal réveil des consciences. réveil si àll bi léegi ñooñu ñëpp dama leen di kii. doon lii lii muy doon jàmbaar li bëri na de. 17 téléphone la. 25 laa war a mu doon yóbbante ko mais damay def weer bu ne ma yóbbante am ñu ñoo xam gis nga yii jeeg ji jeeg ji tamit ci lañ bokk xamuñu lu xew parce que xamuñu problème bi ñoom RTS la ñuy seetaan wala kii nu mu wala TFM te ñooñu. ay télé yoo xam ne dañuy nëbbu askan bi li nga xam ne moo xew ñi ne faw ñu yeewu pour ñu yeewu man dama gëm ne faw ñu am ay téléphone maa leen ko dig nag bind leen ñoom dama dama bind liste la. carnet bi amoo carnet bi carnet baa ngi nii yee ñoom ñëpp laa bind ñoom ñëpp fi laa bind dama leen installer email yaa dafa bari de gis nga lii tam ay téléphone bii téléphone yi ay Samsung la kii seeru léegi diaspora mhm. ñoom ñëpp ñoo war a def comme nii maanaam ut ay téléphone may ko gars yi si àll bi parce que ñu mën a xam lan moo xew Samsung yi seeru yaa ngi gis yëpp moom yëpp mu ko jënd par online gis bii moom benn benn coordinateur laa ko jëndee quoi moom problème téléphone la am bii tamit aussi noonu yeah bii tamit yëpp ay téléphone li yëpp ñoom laa ko ñoom laa koy jox parce que dafa jot. gaa yi yeew gaa yi far force. ñu jël salum la nak mais benen ki bi may defaat. mais salum ci fat euh Malem oda amna amna am na am na quatre téléphones yu jëm côté bo Malem oda ak euh Ngabba euh, ngaba amna yu jëm amna yu jëm mawo amna bu jëm euh, Ndaraane escal amna bu jëm wakum guna amna bu jëm euh, Kucey amna bu jëm. Lat Menge ñooñu nag côté boobu lu xuran Menge boobu moom ñooñu ñoo gën a nelaw nag ñoom ñoom parce que ay ay ay mbana lañ leen di naxee ak ak ak yu kenn xamul daal léegi ñoom xam nga loo xamoon problème lañu am xamoon problème lañu am. parce que ñoom waa APR bu ñu ñëwee leen wax xam-xam amul ku leen di xam-xam foofu noonu léegi te patriote nekk doon ay coordinateur xam nga nit ki mënoo nekk di politique te amoo sax dépasse léegi patriote coordinateur yëpp ñu ngi Dakar léegi ñoom dañ leen nax moo tax léegi nag am na am na maire yoo xam ne damaa toog di benn ñoo xam ne benn dëkk dëkk bi damay fàttali ñu tudd dama toog rek commencé waxtaan ak ñoom benn borom moto ñëw dee kenn ñëpp bàyyi ma fa ma doon waxtaane mais dama leen wax dama leen utal ay téléphone beneen bi wax ñoom ñëpp woo naa leen téléphone nag ma leen kenn ku ne damaa bëgg nga présenté ma dix carte d'identité yoo xam ne yaa leen utal dix yoo xam ne yaa leen utal carte ak carte électeur mooy borom téléphone yi quoi borom téléphone ah. loolu laa leen wax légui ñom nénañ nañ xam amna ci si ñoo xam ne xamuñu dara ci téléphone mosuñu am téléphone ñoo mënd danaa leen assurer 3 mois abonné nga xamné ne dañuy seetaan Sonko rek yëpp may installé email yi nak ñom am buñu installé sen bop téléphone légui ñom comprendre ju téléphone gis nga yëpp lay jëm ñu iPhone ki la gis nga yi seero 17 17 téléphone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 deux ak ak yi ne si biir car yi ne si biir carton bi ak beneen carton bi si bi si nekk waaw yii yëpp ay téléphone la am lii yëpp nag réveil des consciences pour ñu yeewu ko parce damay li may wax diaspora bi nag mooy téléphone yi bu ñu kenn ñaan téléphone nag ku ne si yi lii pour waa àll bi la ñu si village yi nga xam ne xamuñu lu xew. waa Dakar bokkuñ. déedéet Dakar yi lan ay dakaar ay Kaolack ay Tambacounda région yi bokkuñ ñi si biir àll bi laa la mais ku leen di jox connexion jàmbaar. non connexion loolu problème man ku ma ne dañ connecté ku am téléphone di nga connecté loolu du problème connexion moom bu ñu ko ñaanee seen mag yi sax mën nañ ko am léegi gars yi dañu utal gars yi man loolu laa leen proposé léegi nag xam nga loolu laa leen waxaat nag waaye leen ku si ku ma si présenté dix personnes yu am quarante ku ma si présenté dix personnes yoo xam ne yaa ngi utal quarante parce que mu toll nii ku uti carte parce que boo ko defee danga mën a dem am carte électeur bu bindu jotee boo toogee bindu jot nga dem uti carte d'identité doo am carte électeur carte d'identité rek lañ lay jox est-ce que comprendre wala léegi bu toll nii damay essayer email yëpp xam nga nu ma leen def damay essayer email yëpp ma abonné abonné si paasu Sonko yëpp paasu one million mars ANN TV Sonko rek jot na ak euh, nu bi tuddati Thiam Torodo Aykon Niass Issa Diène yaa ngi dégg. ak ñuy def live Facebook kii rek Sonko yi rek laay topp nag Sonko yi rek laay topp abonné leen si même TikTok Sonko yi rek laay abonné léegi email yi xam nga maa koy yor. Mhm. ñoom amuñu email. léegi nag ku ma si ku ma gisul kenn koo xamante ni jéemoo nekk di yeewu parce que ñun dañoo wax ay waxi dof yoo xam ne dafa jot ñu yeewu email bi daanaka kat yëpp boole kay téléphone mën naa ko ordinateur bi laay dugg boole <laughs> boole kay jot yëpp soo ko for force 2024 président Moussa léegi fu yi ma oora doole maa ngi order yeneen téléphone mi ngi war a ñëw parce que online laa ko jënd eBay laay dem xool téléphone yi yomb yi affaire bi méttiwul boo gisee da nga yaakaar xaalis bu bari la affaire yooyu noonu voilà amuñu xaalis na bay may ay téléphone mais lii ñii moom dañoo war a yeewu parce que man ma demee liñ ma xool fii laay dugg yi eBay gis nga ko fii laay dugg xool gis nga téléphone yii yëpp dama ko jënd xaaral ma dugg man la yi ma yi order xoolal process xoolal fii dama leen order gis yëpp ay yëpp dama ko jënd boo pare muy ñëw yii yëpp yëpp dama koy maye gis nga ko yii yëpp dama koy maye yii yëpp dama ko jënd muy ñëw incha allah su ñëpp defee lii de moom. jarul Sonko après non man dama bind ñoo xam ne maanaam waxi dof yañ wax. moo tax mu utal leen téléphone léegi nag boo paree beneen ko kii bu may jënd arrivage bu may pour Podor na ñoo xam ne ñu ngi Podor am na ñoo xam ne ñu ngi Njum Aéré Lao Kanel ak. Euh, yaa ngi dëkku Macky Sall de côté yooyu. Macky Macky moomul fenn Macky moom ñàkk na. tout sauf Macky Sonko fa force foofu laa koy yemale léegi bàyyi ma yeggal li may def damay bañ nga tardé ma sama liggéey parce que dama bëgg dugal yëpp dama bëgg dugal seen wifi daal di euh, wàcce téléchargé leen kii euh, kii si loolu laa nekk. sama gars yi daf leen ni nii nag wala ñu ko defee moom la. non Sonko fa force 2024 focus 2024 ay wax rek sa Samsung la kii seeru léegi diaspora. Mhm. ñoom ñëpp dañoo war a def comme nii maanaam ut ay téléphone may ko gars si àll bi. parce que ñu mën a xam lan moo xew samsung yi seerul yaa ngi gis lii yëpp moom yëpp moom ko jënd par online gis bii moom benn benn coordinateur laa ko jëndee quoi moom problème mu téléphone la am bii tamit aussi noonu.